jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97 point 5 mbokk yi ñu dellu am mbégte bu baax a baax euh, yéen sunu mbokk auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi xam ngeen ne samedi bu jot ci waxtu wi ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ñu am mbégte ñëw ak yéen ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Adama Diallo moo nekk ci wàllu machine bi. mbokk yi tey ñu dellu am mbégte nag daal di invité maître Abdy naar Ndiaye. mu nekk euh, avocat à la cour nekk tamit euh, porte-parole nationale du parti politique euh, bi ñu tuddee nag MPD maanaam parti politique bi di mouvement des patriotes pour le développement liggéey moom la ñu invité tey moom nag ay jamono tamit nekkoon nag yor kàddu kuréel gi nga xam ne moo ëmb étudiants yi nekk faculté de droit ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru maître maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Abdou maa ngi lay delloo nuyu. di profito ci antenne bi di ñaanal yàlla suñu borom sénégalais yëpp yàlla defal nu fan nu gudd ak wér te defal nu jàmm. jërëjëf euh, maître euh, ñun tim am nañ mbégte bu baax euh, ci ñëw bi nga xam ne ñëw nga ko ci invitation bi laaj bu njëkk bi rek mënuñu ko ñàkk laaj bala ñu dugg ci biir waxtaan wi mooy Amadou Mahtar mbaw professeur Amadou Mahtar mbaw Euh, moom nag euh, am na jamono ji lu toll ci euh, téeméeri at ñu koy ñaanal mu daal di yokk mu nekk koo xamante ni tey ñoo ngi feete li nga xam ne mooy anniversaire am ay jamono jiite woon na UNESCO lan nga ci wax. waaw maa ngi lay sant Amadou maxtar Mbow nag moom njort naa ni sénégalais bu ne sag la ci moom. Mhm. ci bu nu xoolee maanaam ay jaar jaaram. macha allah mu nekk koo xam ne nii nit ku am solo la ci Sénégal. Mhm. mu war a nekk nag royukaay ci bépp ndaw. bépp ndaw bépp ndaw. donc bu amee lu ñuy jàngat ci moom. Mhm. mooy damay invité tout la jeunesse sénégalaise maanaam ñu roy ko ci jikko roy ko ci jëfin roy ko ci xalaat. ak taxawaay bi moom Sénégal ci démocratie ak xam ne moom Sénégal ci démocratie ak bitim réew yëpp. Mhm. xam ni image yu Sénégal honoré na ko fu ne. Mhm. loolu nag wax dëgg yàlla ku nuy sagoo la di ñaan yàlla suñu borom mi xam ne moo am kàttan mu defal ko fanu gudd. wéeral ko bàyyi ko fii ba ci ndax mën nañu continuer di jëflante di jëfandikoo ay xarit ay ay xalaatam. Uh-huh. jërëjëf euh, maître euh, kon nag euh, ginnaaw bi ñuy waxee ci loolu ba pare dina dinañu dugg ci actualité bu bu baax a baax ndax yow avocat nga. danañu ñëw ci mbir yi Ousmane Sonko ak eh, Adji Sarr te gis nañ tamit ne réeroo am na eh, ci eh, ci baro bi mën nañ ko waxee noonu man ñenn ñi sax tuddi nañ ko ne pëccëxoo moo fa am ndax gis nañ ay avocat yoo xam ne ñoo ngi portante plainte bi si mujj tamit gis nañ Adji Sarr def benn sortie ñenn ñi jàpp ne dafa violer li nga xam ne mooy secret de l'instruction yooyu yëpp danañu daal danañu danañu ci daal di ñëw fi ñuy njëkkee rek mooy ci seen parti bi nga xamante ni mooy mouvement Euh, des patriotes euh, pour le développement euh, liggéey te ki nga xam ne mooy ministre Alioune Sow jiite ko seen parti boobu fan ngeen toll jamono ji maître waaw ci wàllum liggéey lay sant di la gërëm bu baax di leeral rek ni en fait parti bi ñuy wax mouvement des patriotes pour le développement liggéey mu MPD liggéey njiit li mooy Aliou Sow hmm. Aliou Sow nag professeur d'université la di doomu Sénégal boo xam ni yaakaar nañ ñu bari ràññee nañ ko ci réew mi ndax taxawaayam ak jaar-jaaram moo jiite parti bi moo jiite parti bi moom Aliou Sow mu nekk nit koo xam ne nii nit ku yàlla euh, dimbali la. ci maanaam li ñuy wax maanaam parcours néew na sénégalais bu jaar ci fi mu jaar boo xoolee bu ñu fàttalikoo tuuti euh, Ablaye Wade mi ngi ko tabboon def ko ndaw réew mi euh, ci âge yu vingt cinq ans mu nekkoon député. Mm-hmm. ginnaaw loolu ñaari at la ci teg def ko ministre. nekk naag moom diirub fukki at. ci wàllu maanaam di di doxal politique gu réew mi euh, te boobaak léegi kenn déggagul maanaam ci ñu site ko ci loo xam ne nii ku ko dégg rek maanaam am gàcce ci lu ni mel. mu mel ni yàlla daf ko dimbali mu nekk tamit koo xam ne nii ku xarañ la ci wàllu gëstu tey jii c'est un il est professeur titulaire. en fait donc des universités euh, mu nekk koo xam daal roykaay la woon nag ci maanaam parti bi xam ne moom lay wax mouvement des patriotes pour le développement mais parti boo xam ne également ñu ko créé en 2014 mais auparavant euh, mi ngi nekkoon benn euh, mouvement politique dans les années 2012 bi nu doxee ab diir mu wax ni du ko mën a soppi mukk parti politique tant que demul ba atteindre benn objectif lu ci mel ni 10 000 cartes de membres yoo xam ni dañ koy placé partout au Sénégal ginnaaw bi nu doxee ab diir rek gis nañ ni maanaam dix mille yooyu wees nañ ko ci diir bu gàtt ci la ñu def li ñuy wax euh, maanaam un congrès national organisé ko fii en fait euh, en octobre 2014 créé parti bi après avoir effectivement donc obtenu euh, le récépissé du parti. Mm. parti bi nag parti bu nu structuré la. Mm-hmm. lan moo koy firndeel na bu ñu structuré la. waaw parti bu ñu structuré la boo xoolee organisme nationaux yi. Euh, bokk na ci am na lu ñuy wax pa bànqaas bu ñu tuddee les pépinières des benjamins mhm. mu xam ne moo regroupé ndaw ñi xam ni amaguñ fukki at ak juróom-benn euh, di leen former ci wàllu xam-xam ak yu ni mel euh, am na également benn coordination bu ñuy wax coordination des jeunes étudiants libéro muy CEP moo nekk la branche estudiantine man mi falaa sokkee ko ci njalbeen am na aussi li ñuy wax coordination des jeunes patriotes am na également l'union des femmes patriotes am union des cadres patriotes am union des enseignants et chercheurs patriotes am le conseil des anciens patriotes am également benn institut de formation et de recherche patriotique mu nekk bànqaas yoo xam ne nii bépp militant bu bokk ci parti bi ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul maanaam dañuy def des séances di former ñi ci wàllu effectivement donc wàllu mu mën a doon man mii damay suivre effectivement jusqu'à aujourd'hui des formations ci ay domaines yu bëree bëri. waaw d'accord euh, maître euh, mmh. Abdy Nar Ndiaye. Mhm. yow yaay porte-parole euh, MPD liggéey. Mhm. Euh, ni nga ko waxee sànq mais seen partie bi tey. Mhm. Euh, ci opposition bi ngeen nekk wala ci mouvance présidentielle. waaw ñun nag nekkuñu ci opposition euh, la nekkunu ci mouvance euh, présidentielle ñun ci opposition la nekk waaye ñu nekk ci opposition également bu républicaine. c'est-à-dire maanaam ñun jiitaloon maanaam di nërmeel maanaam maam li ñuy wax état. mais est ni ngeen opposé tamit nooyul. waaw ba ñenn ñi jàpp ne da ngeen a faral nguur. de farandoo nguur yàlla dogaloon na nag ab diir ci ginnaaw. Euh, ci jamonoy élection 2019 bi ñu jàppale woon ki ñuy wax le candidat Macky Sall à sa demande d'ailleurs euh, ma fàttali na ci jamono jooju euh, bi candidat yi taxawee ñun ci suñ parti bi dañu woote réunion muy ndaje moo xam ne nii dañu wax ni kat ñun faw ñu féete am fu nu féete waaye ci maanaam wàllu ligne doctrinale dañu gis ni comme c'est un libéral et à sa demande ñun waxtaanee bu déggoo ci lañ nañ ko soutenir waaye ginnaaw bi ñu ko soutenir. ba pare mais est-ce que amutoon yeneen candidat yu yu sàkk woon ngeen jàppale leen. Oh. ku ci meloon Idrissa Seck. wala maître Madické Niang waaw Seck euh, xawoon na noo jige ab diir waxtaan ak ñun waaye dañoo gis ni la mu tàmbali woon continuer woo ko wéyul woon ak ñun. ñu gis ni nag kon xëy na loola da ko ñërul woon bu baax mais ñi ki ko ñoroon moom jugal na boppam woote. yónnee également ki ñuy wax premier ministre à l'époque maanaam mu ñëw waxtaan ak suñu leader d'ailleurs sax dépêché woon na ko mu ñëw au niveau de Kër Pathé le village natal du président Aliou Sow wax ñu def fa benn meeting bu rëy boo xam ne nii la ñuy décider fa lañ ko décider. mais euh, mais seen parti lu tax amu leen candidat euh, euh, ministre wala professeur Aliou Sow ni nga ko waxee sànq bi ñu koy def député bi ñu koy def ministre loolu boobu yëpp mën nañoo wax ne xale la ba léegi nii sax xale la lan moo tax samputoon dëndam. waaw en fait ci jamono jooju danoo nekkoon di installer parti bi ci jamono yi 2019 gis na ni. maanaam mënagunoo dem ci wàllu politique maanaam dem ci élection yi toll noonu muy élection présidentielle parce que booba ñu ngi doon taxaw di tëral tëralin en fait euh, parti bi di ko installer partout au Sénégal nekkoon également ci formation également militant yi donc euh, am na lu bari lu desoon lu tax maanaam euh, décidé woon pour dem. ci lan ngeen di former militant yi. waaw ci wàllu wu mën a doon ci civisme ci en fait état nation. ci démocratie. citoyenneté ay thèmes la yoo xam ne nii le professeur Aliou Sow dafay dépêcher en fait un spécialiste autorisé en la matière mu ñëw def une séance de deux heures de temps pas plus que la semaine passée man j'ai subi effectivement donc une formation en la matière kon yéen euh, seen parti bi maanaam li ñuy wax euh, euh, da ngeen bëgg a def l'école du parti. dafa am maanaam kuréel goo xam ne. Mhm. mooy tàggat ña fay nekk. ñu ngi ko tuddee institut de formation et de recherche patriotique. mais loolu gis nañ ne parti politique yu bari Sénégal gisuñ fa lu mel. waaw fi toll nii ñun xam nga. lu ngeen si jublu aussi. waaw le professeur Aliou Sow dafa wax ni il va ñu delluwaat ci fondamentaux yi bu njëkkee maanaam parti politique du woon pour génn ci biti di saagaaka yàq maam wax waxin woo xam ne nii mën naa nërmeel sa am réew waaye dafa bëggoon ñu delluwaat ci njalbeen nañ doon doxee mooy parti li ko tax a jóg leen dong la mooy nan lañ mën a def ba yitte yi askan wi ñu mën koo toppatoo ci anam bi mu gën a rafete loolu nag mais est-ce que yéen est-ce que yéen yitte askan wi yéen a ngi ci yéen a ngi si wax bu baax a baax askan wi xëy na nit ñu sommes peut-être euh, nous sommes inaudibles mais nu sommes pas silencieux waaw d'accord mais maître Alioune Sow mhm. euh, dafa nekkoon ci benn parti politique bu mhm. tudd PDS mhm. PDS ñëpp xam taxawaay bi PDS amee woon euh, ci wàllum mobilisation wàllum manifestation wàllum buy ñaawlu dara ngay ñaawlu dara booy opposé nga xam ne da ngay opposé mais loolu taxawaay boobu est-ce que seen parti bi réellement euh, MPD liggéey euh, am na taxawaay boobu. bu baax a baax en fait xam nga euh, moom Aliou Sow ginnaaw dogal bi yàlla lu mu doon ci wàllu politique ci Ablaye Wade la jaar te loolu saa su ne mu di ko fàttali. ba même ba ci maanaam parti bi xam moom la nekk jamono ju ne dina rendre hommage en fait à maître Abdoulaye Wade ci dimbali gi mu ko dimbali ba mu agsi fi mu agsi ci wàllu politique. waaye nag euh, teewul maanaam parti bi comme ni ma ko waxee woon bu yees la. boo xam ne nii maanaam at yi amagul bareegul lool waaye teewul mi ngi def liggéey bu yaatoo yaatu ci maanaam fexe ba wër réew mi fépp maam installé fa maam des unités ba sénégalais xam ko waxtaan ak ñoom également ci programme bi xam ne moom lañ am partagé ko ak ñoom loolu nag ci la nekk du tee maam lépp loo xam mos naa xew ci réew mi moom moom ci boppam àdduna ci wala mu yebal ma man ma àddu ci ba ci récemment li xew ci réew mi muy yëngu-yëngu yi def na en fait une réunion en fait du conseil national élargi bi ñu ci waxtaanee ba pare di génn nañ benn communiqué boo xam ne nii publier nañ ko ci ay sites yu bëree ak ay journal pour que nit ñi xam ni ñun lii mooy suñu position ci situation politique nationale bi. Euh, d'accord euh, maître léegi sànq euh, wax nga ne. Mhm. ci élection 2019 yi président Macky Macky Sall ngeen doon jàppale. Euh, lan moo tax ngeen génn ci jàppale googu. waaw xam nga bi ñu koy jàppale tamit ci ay principe lañ ko jàppale woon ak i valeur ñun du woon affaire u xaalis. da ngeen a dem ba gisatu leen principe yooyu ak valeur yooyu. waaw lu baax a baax parce que boo xoolee ah, ginnaaw bi nu falee Macky Sall ba léegi réew mi bari na ay ak yoo xam ne amoon na ko dafay gën di dellu ginnaaw. comme comme lu wàllu démocratie xam nga démocratie dafay favoriser progrès. mais bu fekkee képp koo xam ne nii am na yéene wala xalaat boo xam wuute na ak sa bés nga nërmeel ko dugal ci kaso gi loolu xam nga ni c'est un recul démocratique te loolu ñun mën na koo cautionner benn ñaareel bi mooy gis nañ ni maanaam assemblée nationale maam rôle bi xam ne moom la war a jouer muy contrôle de l'action du gouvernement maam moom ci boppam teg na leen loxo ba ñooñu moo moomuñu seen bopp tey maanaam lépp loo xam ne nii indi nañ ko fa duñ ko sax saytu ndax loolu baax na ci réew mi wala déet mais dañuy xool rek maanaam comme jubluwaay bi li Macky Sall bëgg moom lañ bëgg ñoom loolu rek la ñuy topp te loolu jàpp naa ne aussi luy doxal am réew te bokk na aussi ci li xam ni seetlu nan ko mooy mboolem ko musa àndal ci njëlbeen ba léegi maanaam la xam ni moo taxoon nga ànd ak moom euh, maanaam moom daf ko salfaañe ñu ci bari tey ñi mu àndaloon kenn gisatu leen ci wetam rawatee na ki xam ni kon jël àndul woon ci njëlbeenam lu waral loolu. ah loolu waaw loolu nag dama jàpp ni doxin la woo xam ne nii ci mag yi daal ràññee nañ ko xamul nag lu ko sabab. dafay wor dafay wor. ah loolu mënees nañ ko tuddee noonu parce que waaye amuñu firndeel yi waaye daal li mën a xam mooy ñi mu àndaloo ñëpp démb. Hmm. ñu jàppale ko ba mu agsi fi mu agsi tey. Hmm. maam ñoo ñëpp war na leen. est-ce que yeen parti. MPD hmm. euh, liggéey. est-ce que euh, gis ngeen ne. Macky Sall njiitu mi dafa fonkul kàddoom loolu ngeen gis. waaw loolu nag euh, man fan yi ci ginnaaw àddunaa ci xam nga tey mag Macky Sall euh, bari na lu muy wax ci réew mi bu génn wax ko ñëpp dégg ko waaye bu ñu doxee ab diir day wute ak li mu waxoon. loolu mooy ci par exemple ci emploi des jeunes. mais loolu kon mooy ku fonkul kàddoom. waaw loolu la waaw loolu mënees nañ noonu. mooy que ni bokk na daal ci li nu ràññee. léegi lan la wax lu mu fonkul kàddoom. waaw bokk na ci li mu waxoon ni moom. Euh, maanaam dina jiital maanaam askan wi fàtte parteem waaye gis na ni loolu loolu tumuranke na ci réew mi. dafa ngar daajoo mbir waaw ndax day boo xoolee tey ba ci même gestion maam état bi sa famille même est impliquée au cœur te hmm. loolu ça pose problème dans un état de droit léegi xale yi nga doon wax sànq jeunes bokk na également ci wàllu li nu ràññi li mu waxoon ci wàllu politique gu ndaw ñi maanaam loolu récemment la génn wax ni loolu échec la lam ca waxoon dara amu ci d'accord léegi nag euh, dafay jubbantiwaat maanaam gouvernement d'accord léegi nag euh, maître euh, man fi mu ne nii mhm. li nga wax nii dama si gis mhm. loo xamante ni ay incohérence tuuti mhm. nga baal ma yow yéen avant ngeen di ànd ak Macky deux mille dix-neuf sànq da nga ne ku ku jéem a taxaw di bëgg dara mu faagaagal la dugal ci kaso bi. Mhm. mais avant deux mille dix neuf. Mhm. loolu doon nañ ko tuumaal Macky Sall. Mhm. ndax kaawu Karim Wade avant deux mille dix neuf la kaawu Khalifa Sall avant deux mille dix neuf la. ak yeneen kaa. kon lan moo tax kaa yooyu yëpp ngeen remarqué woon ko ba pare deux mille dix neuf ngeen bokk si ñi tegaat Macky Sall ci bopp réew mi euh, beneen bi. nee nga Macky Sall dafa jël famem yëpp dugal leen ci li nga xamante ni tey mooy ni réew mi di doxee. loolu nag. Euh, kenn du ko weddi. Mhm. amaana ñi mu fa dugal sax amaana ay mbokkam lañ yoo xam ne am nañ xam-xam. Mhm. mais yéen euh, avant deux mille dix neuf. Mhm. ràññee woon ngeen ne. Macky Sall njabootam gi. ma ngi ci biir ni ñuy doxalee réew mi. te teewul ànd ngeen fal ko deux mille dix neuf. kon lan moo tax deux mille dix neuf weesu. ngeen bëgg a ŋàññi loo xam ne gisoon ngeen ko avant deux mille dix neuf. de incohérence amul euh, sëñ Abdou Khadre boo xoolee. moom ci jamono ji xam ñi ngi sàkku réew mi maam part ñi xam ni ñoo doon wut réew mi moom rek moo ci déplacé wu ci personnel ñëw wax ak sunu kilifa maam ci wàllu politique bi mu ci waxtaanee ak ñun tamit ñun aussi def na des observations xamal ko ni ko réew mi kat ni nga ko yore nangam ak nangam am loo xam ni ma àndunu ci mhm. te amoon nañ bëggoon nañ nga soppi ko ci loolu moom jëloon na des engagements forts pour wax ni bu jëlaatee réew mi dina jubbanti rëkk-rëkk yooyu maam sur la base de cette confiance ak aussi bokk ak moom également ligne de conduite doctrinale bokk na euh, ci li li waral ñu ñu ànd mais mais mais ginnaaw bi ñu ci waxtaanee waxtaanee waaw mais avant 2019 waaw ah, bi ngeen koy jàppale waxoon ngeen ko na ko ku bëgg ngeen faagaagal dugal ci kasu bi beneen bi gis ngeen seen njaboot euh, sa njaboot gi nga dugal ci ci ci ci ci yorinu réew mi yéen point yooyu bi ngeen ci waxee ak moom mhm. d'accord woon na ne. Mhm. su faloo 2019. dina soppi dina ko soppi. Mhm. d'accord ngeen ci. d'accord nañ ci. mais loolu soppeekuwul. waaw moom soppeeku moo tax ñu génn ci. ban gisee ni maam lan waxante woon ak ñun mhm. moom sàmmul kàddoom ñun dañoo daal di dellu fan ne woon ku demul cégg dem bay laar <laughs> jërëjëf maître Abdy Nar euh, Ndiaye mbokk yi moom la ñu euh, invité tey ci seen émission pencum réew mi euh, moom nag mu bokk ci ay parti bi nga xamante ni mooy MPD liggéey te professeur Alioune Sow jiite ko léegi yéen seen parti bi mhm. demu leen deux mille dix-neuf fi mu ne nii ndax bu élection locale ñëwoon mooy élection yoo xamante ni moom xanaa lu ngeen lu ngeen kii kii da ngeen ci jéem a bokk est-ce que yéen a ngi koy waaj tey bu élection ñëwoon. waaw en fait sëñ euh, Abdou Khadre dinaa la leeral fii tey ni gis mouvement bi ñu euh, le parti bi ñuy wax mouvement de patriotes pour le développement bokk na tey jii ci ci réew mi maam ci lu nit ñi xam ak lu xamul parti bi gën a structuré wu ci wàllu maanaam organisation ak méthode tey jii maanaam Sénégal ba mu daj. amul fenn fooy dem te fekkoo fa ñu dugal fa maanaam ñu taxal fa UVAP ma benn unité de veille boo xam ne nii yittee mooy sensibiliser les sénégalais ci suñ programme bi xam ni moom lañ ëmbal sénégalais yi tey ci Sénégal fépp boo demee ci bànkaasu étudiants yi tey jii ci année ren bi li mu néew néew jaay nañ ci mille cartes d' étudiants te yooyu on a toutes les preuves tax wàllu alal ji xam ne moo fa jógee ñu ngi ko logé dans un compte bancaire boo xam ne bis bu ñu publier ko ci page kii bi ci page Euh, euh, seen parti bi waaw muy nu leer te it maanaam wax la lenn tey ji parti yi xam ni yëngu ci réew mi baree bari mais sàmmantu woon ak yoon ñun tey ji ci atum njot naa ni bokk nañ ci parti yi xam ni néew na ñu dem présenter un bilan financier au niveau du ministère de l'intérieur te def nañ ko ñun mhm. boo ko doon seet ci réew mi matul ñaar ba ñett ba ñeent yu koy def te yéen ko def te gouvernement bi état bi am na sañ-sañ képp koo xam ni sàmmantewu ak maanaam situation kii boobu condition boobu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dindi. mais xanaa kon APR la ñuy njëkk a dindi. ah mën naa nekk moom daal li wóor mooy. képp koo xam sàmmantewu ak loolu est-ce que tey yéen ngi waajal est-ce que élection locale bu baax a baax ñu ngi koy waajal bu baax te it incha allah dañ bokk ci maanaam élection yii di ñëw te it moo tax tàllal nañ loxo mboolem kuréel boo xam di yëngu ci wàllu politique ngir ñu def ay coalition pas coalition boo xam ñun day ñëw seeyal suñu bopp ci biir ñun effectivement le moteur même de cette coalition là pour effectivement donc présider. d'accord mais xam nga maître. Mhm. Euh, yéen. Mhm. seen parti bi. Mhm. Euh, amaana structuré nañ ko. amaana ay kàngam. ñu ngi ci biir ñoo ngi ci biir parti bi ma leeral la foofu. waaw parti bi tey jii ëmb na mboolem couche boo laal ay avocat ñu ngi ci biir du benn du ñaar maanaam ay profe euh, professeur d'université ñu ngi ci biir ay enseignant ñu ngi ci biir ay médecin ñu ngi ci biir ay euh, ingénieur ñu ngi ci biir maanaam couche boo laar rek ci Sénégal maanaam tey ji parti bi am na ci ay kuréel sànq wax naa leen ne am na union des enseignants et chercheurs patriotiques am union des cadres et tout cela veut dire quoi ça veut dire que le parti est bien structuré te fii may wax a yow ni option maanaam euh, docteur Aliou Sow la ci liggéey ci suuf ndax kun xam foo jëm doo d'accord mais nag euh, maître mhm. docteur Aliou Sow moom ngay wax mhm. sénégalais yi xam nañu ko. Mhm. fii ci biir réew mi. Mhm. ak ci bitim réew mais nag seen parti bi. Mhm. wax dëgg yàlla dese naa dese naa nag siiw nag am benn dayo bi. dese na ko am ndax yow seen euh, dafa am noo xam ne nag moom la ñuy opposé euh, fii ci Sénégal waxuñu ngeen xaste waxu ci ngeen saaga waxuñu ngeen sosalaate mais rare lañ gëj gis yéen seen parti bi ngeen organiser conférence de presse. ñaawlu loo xamante ni tey ñëpp ñoo ngi koy ñaawlu wala askan wi daje ngeen ñëw wane ne yéen a ngi ci biir ndax yu baree bari xew na fi te mosuñ leen cee dégg ni ngeen opposé moom euh, metre est-ce que xawata doy waar. waaw xëy na en fait. est-ce nooyut ni ngeen opposé est-ce nooyut aussi. non xay na no ni ñu ko xalaatee noonu sa demewul noonu ñun opposition dañu jàpp ni du dugg ci rajo yi ak télé yi ak réseaux sociaux yi di saaga nit ñi ak maanaam wu xastante ak boddante ñun dañu njort ni maam opposition du leen lu dul xool man doxinu réew mi li ci dëppoowul ak intérêt yi maanaam askan wi nga ŋàññi ko ba pare joxe une solution te loolu kenn ku ne xam na ni suñu parti bi mi ngi ci wax naa la sànq ni la yaa moins de deux semaines on a euh, génn nañ benn communiqué boo xam ne nii maanaam def na une analyse effectivement fine de la situation politique nationale euh, bépp euh, jafe-jafe bu ci am wax nañ ca ñun la lañ ca war a wax joxe ca propose dafa ay proposition kon ma gis ni kon opposition ñu ngi koy def xëy na euh, liñ mënul mooy yëkkati suñ kàddu di wax wax ju ñaaw ak xam di def li ñuy wax buzz ñun buzz ñorunu am réew ku ko bëgg a yor doo ñaan yàlla mu yàqoo ci yow. loolu mooy li xam ne ngeen au moins wax ak Sénégalais yi def tournée ah la semaine passée le président en fait euh, le professeur Aliou Sow avait délégué cinq du de, de des cadres du parti pour aller sillonner le département de Goudomp boo xoolee tey suñ site yi ak suñ page Facebook yi nga gis effectivement des des des images en fait illustratives yu wane ni effectivement on est sur le terrain. d'accord mais yéen euh, léegi léegi. te fu yi may waxee ak ni nii président aussi jël na initiative. d'accord en fait à partir du mois prochain. Uh-huh. maam sillonner en fait le tour du Sénégal. pour mm-hmm. discuter avec les Sénégalais sur notre projet de société. d'accord léegi euh, waaw léegi léegi euh, maître. Mm-hmm. yéen mm-hmm. su dee tey par exemple tey yitte askan wi ñor na leen. jamonoy coronavirus bi ñu bari ñaawlu nañ ni nga xam ne moom la état bi doxalee mille milliards yeeg yi si aju. yéen lan ngeen ci wax. mais ŋàññi ko. xëy na dafa agsiwul ci yow waaye le professeur ali Sow génn na wax ci ay xalaatam bind na également ci ay euh, journal yu dul jeex man liir naa ci ba tàyyi yoo xam ni moom ŋàññ na doxalin wi te moom ci boppam yëmul ci loolu yëmul ci ŋàññ rek maanaam doxalin doxalinu réew mi dafa boole maanaam woo maanaam cadre tout le monde ñu def ay participation maam li ñuy wax maanaam une dynamique solidaire pour jël ay alal jënde ko ay gel pour respecter les mesures barrières néew na ci Sénégal fu ñu fa demul fa am mi wax ngeen ci ah bu baax a baax a baax dama ni xëy na dafa agsiwul ci yow waaye boo gëstoo tuuti ab de euh, ci ginnaaw bu nga xool journaux yi antérieurement di nga gis ni euh, réew mi lu ci mus a xew rek ñun àddu nañ ci moom à travers la personne du professeur Aliou Sow wala à travers effectivement ma personne ou à travers effectivement même d'autres effectivement membres du du du du MPD te ma xamal leen gis na li ñuy def nii néew na parti bu koy def tey fii may wax ak yow nii euh, Aliou Sow semaine passée rek débloqué na un million de francs CFA ci parti ci jàglee ko ñi xam ni danoo tawat nekk ci l'hôpital xam nga réew mi dafa ñun dañu maanaam dafa bari loo xam ne nii dañuy yor seen seenu làmmiñ di wax rek waaye luy defar ci réew mi nekkunu ci ñun un million yooyu xam nuñ ko defam ay pàcc pàcc cinquante mille lañ ko def dem ci hôpital yi xam ne ñoo ne ci réew mi ci gox-goxaan yi partout maam di jàppale ñi xam ne dañoo feebar te mën noo fay seen médi médicaments yi tey jii boo xoolee page yi di nga ci am sa luñ jotal bu leeral pour wax la rek ñun ñu ngi liggéey liggéey bu yaatu yemul foofu moom ci Aliou docteur Aliou Sow le professeur nee na Euh, maanaam nit ñi bu ñu xoolee Sénégal nit ñi bëgg nañu ab liggéey waaye dañ leen di organiser wu leen tey bokk na ci ay femmes yu ñuy wax maanaam benn programme bu ñu yor au niveau du MPD ñu tudde ko euh, programme rafet liggéey xamal lan mooy yite ji mooy dem ci gox goxaan yi gis kuréel yi maam jigéen ñi ñi xam ne amuñu doole waaye am nañ ay initiative ñu ñëw maanaam jox leen lu toll lu tolloog ay deux cent cinquante mille cinq cent mille pour jàppale leen ko lu ci mel ni jëndale ay machine ay wàllukaay wala transformation et tout pour ñu mën a jariñ seen bopp loolu ñu ngi koy def te euh, bu doxee bu doxee ab diir den effectivement gën a communiquer ak sénégalais ci wàllu wu ni mel. d'accord lan mooy seen relation tey aussi yemul ci loolu étudiants yi. boo demee université. tey euh, le pré docteur président dafa demander à les cadres du parti. ñu parrainer des avocats ñu parrainer des des étudiants mooy lan. mooy étudiant bu nu gis ngay soog a ñëw université ginnaaw bi ñu waxtaanee yow ba xam ci li ngay yëngu ñu daal di jël en fait kenn ku ne cinquante mille francs ci ba ci ba ci man mi pare ne ko maanaam un étudiant par mois. di ko jàppale waa yéen lan mooy seen relation. Hmm. ak yeneen parti politique yi nekk ci opposition bi ndax xam nga nag. Hmm. lenn moo fi am opposition moo fi am ak pouvoir moo fi am. Hmm. ñun gis nañ fi ay front euh, national de résistance ak xeet yooyu noonu. coalition yi nga xamante ni mooy faral di am mais coalition yooyu est-ce que yéen yéen ngi ñëw di ci participer di ci bokk. waaw en fait maanaam den ci participer mais pas de façon maanaam maanaam ñëw en fait wane ni ñu ngi ci biir mais liggéey ba ñuy def ñun ak ñoom ñoo ko bokk ay Aliou le professeur Aliou ñi muy waxal ñu ngi wax ak ñoom ci leader yi ñun ñi xam ne ñu ngi ci parti bi tamit dañuy wàcc sur le terrain di mhm. di di maanaam ànd ak askan wi ci li xam ne dañ koy bañ ba ci yi xam ni moo xew lu yàggul néew génn nañ mais maanaam duñ ko defee ci niki nit ñi di defee mooy maam di xastanteeg xuloo ko yàq loolu moom mësuñu maanaam parti mais mais ngeen ñaawlu mais ngeen ñaawlu bu dee tey ma leeral ñaawlu nan ko ba fa ñaawlu yam nee naa la am nañ communiqué yoo xam ne def nan ko dinaa la ko euh, euh, jox sax ba nga ba nga càmbar mais booy opposé boo gisee noo xam ne doxin wu jaarul yoon la mais da ngeen war a génn ngeen ñaawlu ko mais ñaawlu moom laa la dama lay xay ne yow ci daa agsi wu ci yow waaye réew mi xam na no non non non man nag mhm. man nag yàlla dafa dogal euh, damay def revue de presse mhm. Euh, ci rajo bii. Mhm. Euh, journaux yëpp du mhm. lundi au samedi. Mhm. dañ ma koy indil. te te te euh, revue de presse daf lay obligé. nga riir nga liir ko. waaw Aliou nag gëj naa koo gis. ci ci waaw waaw de presse du du du courroie de transmission rek bu information. tey jii non mais journaux yi laa la waaw moom dama non yi dama koy. non non waxuma la loolu de. waxuma la revue de presse bi dama ne la. revue de presse am na journaliste yoo xam ne mhm. duñ xëy lire journaux yëpp mhm. mais man li tax li may def revue de presse moo tax su ma xëyee mhm. journaux yëpp lañ may indil ma liir journaux yëpp mais di ko liir ba gis ci euh, Alioune Sow parfois euh, dina xaw a yàgg te te moom ku mel ni moom war na di génn di wax ak i ak i ñoñam waaw loolu dama ni musu cee jóg xëy na ni euh, euh, maanaam intensité bi ngay njort ni war na cee wax xam nga wax wax moom bu baree rek day daal di soof li am solo mooy booy wax nga wax luy jariñ te moom waxtu wi xam ni jar na mu génn wax ci réew mi def musu ko wuute génn na ba tàyyi wax ci réew mi ni nangam doxul tey nii la gisee ni buñ ko defee mu soppi mu soppeeku tey nee naa la aussi buñ jàpp ni ay journal rek mooy courroie de transmission bi déedéet tey jii maanaam avec le développement de des nouvelles technologies de l'info et de la communication maanaam anam bu ne dañ ci dañ ciy waxee xalaat waaw dañ ci mais maître nag man nag maa ngi ci maa ngi ci réseaux ma xam ñëpp ah, xam ne kon topp kon toppoonu parce que boo jàppee tey réseaux sociaux yaakaar naa ni ñun inondé nan ko ci maanaam ay discours ci ay communiqué ak ci ay wax ay xalaat ak i solution ci réew mi d' accord euh, yéen est ce que yéen am ngeen programme bu baax a baax programme fii may wax ak yow nii ñu ngi tëgg benn livre boo xam ne nii mu ëmb mboolem loo xam ne moom lan mooy suñu programme jëm ci Sénégal te incha allah ci diir bu gàtt den ko tasaare bu ñëpp jot ci. Euh, jërëjëf euh, maître Abdy Nar Ndiaye. ñu fàttali ma xamal la benn affaire tamit ci nga parti bii ngay gis nii. <coughs> Mhm. parti la boo xam ne nii maanaam dañ ko bëgg doxal ci anam yoo xam ne nii maanaam day dëppoo ak principe ak valeur yi xam ne moo taxawul Sénégal. waaye duñ ko tak mukk ci maanaam génn ci biti di dindi xubbi wor may doomu aadama yi di saagaaka yàq ko loolu moom dafa war a dakk ci réew mi am réew bu buñ ko bëggee defar da ngeen ne da ngay gaaral am réew gaaralu ma kenn dama wax ni am réew kenn du ko tabax ci saaga kenn du ko tabax ci xeex kenn du ko tabax ci toj dañ koy tabax ci maanaam ndaw ña fa ne ñu yar leen jàngal leen ban ban ba yee leen ban ni jar comme ni ñu koy waxee eh, maanaam def leen xam-xam léegi da gis parti boo xam ne ña fa nekk dañuy saaga ak waaw li ma seetlu daal mooy ci réew mi fi ñu jamono ji fii ñaari bu njëlee ñett ba ñeenti at ci ginnaaw maam li ñu xam ne constaté nañ ko mooy eh, am na ci ci Sénégal ñoo xam ne ni seen seen seen yitte yëpp mooy génn ci réseau sociaux yi di saaga nit ñi ak euh, wax-wax ju bon ak euh, dindi mbi kiiraayu maanaam sutura yu doomu aadama yi te loolu njort naa ni état du Sénégal wala na jël responsabilité ci wàllu ni mel comme ñan li ngay wax loolu loolu en fait mais état am na des moyens pour maanaam gëstu loolu ba teg ci ba lu nu xam la xam nga lu nu xam la mais da ngaa jàpp ne ab parti politique ñoo koy def bokk na ay militant parce que boo militant yan parti yow yow xam yaa ngi daw laaj bi aussi daw ma eh. laaj bi dama wax ni ah. maanaam dafa am loo xam ni saytu nan ko constaté ko ci réew mi mooy boo ubbee tey maanaam li ñuy wax les réseaux sociaux tey jii bari na ay kaddu yu fay jub lépp ci loo xam ne nii maam du luy doxal réew mi la ndax ay saaga la boddante kook yu ni mel loolu valeur yooyu dañ ko war a dindi ci réew mi am réew nee naa la dañ koy tabax ci xam-xam dañ koy tabax ci yar ak teggin ak diine waaye am réew kenn du ko tabax ci saaga ak xuloo ak xaste ak tippi war may maam kilifa yi ñun amul. Mm, léegi yow parti Pastef bi ñu faral di tumaal moom nga bëgg a wax. déedéet man tudduma benn parti politique dama ni loolu constat la bu ñu def au plan général. ci ci ci ay parti politique xaw ma nax waa waa APR la xaw waaye daal constaté nan que ñu bu ñuy bu ñuy exprimer wu dañuy gis ni ay appartenance politique la te seen kàddu yi nuy yëkkati. ci daal ci ay doomu aadama réew mi mais démocratie moo baaxoo maam kenn ku ne nga am sa xalaat te fësal ko te respecté xalaatu keneen. donte àndoo ci. jërëjëf euh, donte àndu ci waaye nit ku wax nga jë nga maanaam nga wax ni li mu wax du du du noonu la war a waxee saaga ko xas ko fàttali démbam te kenn ko ne am na loo xam ne nii chacun détient un monde qui naît de lui incommunicable et inexprimable c'est ça la vérité. jërëjëf euh, maître di naar Ndiaye mu nekk euh, avocat la cour bokk ci parti bi di euh, MPD liggéey nekk ki yor seen kàddu tey ñoo ngi ko invité ci rajo Réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi. ngeen di si ànd ak Abdou Khadre samedi bu jot 15h jàpp 16h léegi maître ñu ñëw ci actualité bi mhm. dafa am benn leader parti politique bu tudd Ousmane Sonko. Mhm. am benn xale bu jigéen bu tudd Adji Sarr. Mhm. Adji Sarr daf ko tuumaal ci benn salon de massage bu son ko doon dem nee na Ousmane Sonko daf ko violé ba pare euh, def ko li nga xam ne mooy menace de mort yéen lan moo ci seen xalaat bi mbir moo mu amee. waaw en fait loolu dafa nekk maanaam tey jii benn dossier boo xam dafa pendant devant la justice mu nekk loo xam ne tey article onze bu code de procédure pénale bu Sénégal daf koy tere. ak article bi ñuy wax 363 bu code penal bu Sénégal. lu muy tere ba tax na li muy tere mooy la maanaam mbir la moo xam tey dañ koo dugal ci wàllu yoon mu ne ci li wax instruction instruction am na ci ñoo xam sëñ ñu cee àddu képp ku ci àddu yoon mën na laa teg loxo waaye nag du tee. ci dossier bi ci dossier bi ci dossier waaye nag ñu waxtaan ci li xam ne moo xew. li xew mooy la ma ca waxoon laay wax man ab avocat laa dama ni maanaam ci état de droit maanaam réew moo xam ni dañ koy wax ni état de droit la. bépp citoyen boo xam ni gis na ni maam yoo maanaam àkkam ak yellefam dañ koo salfaañe wala mu njort ni dañ ko tooñ sañ na maam saisir la justice ni leen man kat dan maa tooñ dama bëggoon ñu àtte ma man ak diw loolu maanaam yoon daf koo maye kon Adji Sarr kenn mënu koo xañ maanaam droit am mu saisir la justice pour se prononcer sur effectivement une cause de la même manière euh, état de droit boobu tamit dafa wax ni maam doomu aadama bala ñu koo dugal ci wàllu justice dañ koo war a teg ci ay firnde yu wóor maam li wax des indices graves et concordants de nature à asseoir une quelconque infraction pénale loolu dafay mel ni kon muy Ousmane Sonko euh, le l'honorable député Ousmane Sonko ak maam euh, la daam en fait Adji Sarr kenn ku ne réew mii xam ni moom la ñu dëkkee Sénégal dafa laa jox ak ak yelleef te kenn ku ne ci ñoom akkam ak yelleefam dañ ko war a sàmm dañ ko war a topp man loolu mooy sama xalaat ci mbir mu ni mel maintenant lu koy leeral nag justice am na fi am na bànqaas yoo xam ni noonu lañ tëggee suñu réew loola buñ ca sukkandikoo mën nañoo dem ba leeral mbir mi ndax am na wala amul kan moo tooñ ak ku tooñu d'accord léegi maître euh, li nga xam ne tey mooy procès verbal bi dañoo gis ne dafa dafa fuité euh, ki nga xamante ni tey moo doon moo enquête bi euh, démissionné ci gendarmerie ñenn ñi jàpp ne ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom dañoo jàpp ne ab complot la yàlla moo ci sa xalaat waa xam nga loolu maanaam xalaatu doomu aadama la wax naa la sànq ni la ci démocratie la nekk kenn ku ne am na xalaat ci mbir mu mën a doon waaw maanaam ñooñu seen xalaat mm-hmm. dañ koy respecté du ko dàq waaye man sama xalaat mm-hmm. man mënumaa sukkandiku wax ni maam li ñuy wax maam kompulal parce que pour ma man koo man man koo wax day am ay firnde wuur yu may sukkandiku bokk na ci maanaam ma xam tey day ma wax la ni la am na lu wax nga ma sànq ni ma am na ay procès verbaux yu yoo xam dafa fiwite mais lan moo nu xamal ni nu procès verbaux ay procès verbaux authentique la dañoo gis ne génn na te gendarme deful démenti déet waa d'accord waaye ba fii ñuy wax ak yow maanaam comme ñoom waxuñu kenn mënut a xam ndax fii ñuy wax ak yow maanaam procès verbal yi ñuy wax ni mooy génn maam yu authentique la wala déet d'accord mais maître yow xam nga ne waaw gendarmerie nationale mm-hmm. képp ku génne ay procès verbaux mm-hmm. ne procès verbaux yu authentique la. yu gendarmerie la. Mhm. te du gendarmerie. Mhm. gendarme dina la woo. waa dama ne bu fekkee loolu dafa am. xam nga nee naa sànq ni la ci réew mi nekk état de droit la bu fekkee état de droit la te loolu ñu koy tere yoon tere ko maanaam génne ay procès verbaux yoo xam ne enquête mi ngi en cours. képp ku ko def yoon dafa war a tegu ci bu fekkee loolu am na. même enquêteur bi en ba ci enquêteur bi bu fekkee dafa tegg yoon nee naa la ci état de droit amul kenn koo xam ne am na sañ-sañ maam fab bi li xam ne moo tënk réew mi. képp ku ko def yoon dafa war a tegu sa kaw. d'accord léegi mën a doon léegi yow euh, jàppoo ne kon complot la. de man dama ne mënuma mënuma fii may wax yow nii am ay sukkandikuwaay wér yu ma mën a may ma ne lii complot la. jàppoone ne politique la waaye sukkandikuwaay tamit yu wér yu ma mën a tey nii wax loolu complot est-ce que jàpp amul lu ma ci leer mais ñii wax ne euh, dafa làqu ci ginnaaw waaw loolu waxin la dee naa la sànq ni la kenn ku ne am na ci lecture ku ne sañ naa wax ni man kat mbir mi nii laa ko gisee d'accord léegi Ousmane Sonko dafa def conférence de presse mhm. daal di wax ne euh, wóoluwul euh, li nga xam ne mooy mooy attekat yi mhm. yenn cay attekat mhm. wóoluwu leen daal di wooluwu tamit justice su Sénégal amu ci confiance loolu kàddu yooyu noonu yow euh, ndax yow noonu ko gisee. waa li ma xam daal mooy. maam ci état de droit bi xam moom la ne ci Sénégal. bu doon yow noonu ngay waxee man du waxee noonu. man man ko wóolu suñ justice la ndaxte acteur la ci biir te gis naa aussi ni muy doxee moo xamal ne la fii fii ci point fii may waxee yow nii ni la man gis naa ni réew mi réew mi am justice la. Mhm. réew mi mhm. réew mi am maanaam suñu magistrat yi ay kàngam la yoo xam dañ leen na forme ci école yi gën a mag. xamal leen maam yee leen yar yee leen ba ni jàdd ñooñu njortu naan te seen liggéey bi ñuy def li ma gis moom ñi ngi koy jaarale yoon kon képp ku taxaw ni justice amu ci réew mi da nga xool la neex te kat wax ko erreur la ndax maanaam justice bi bu amul woon musiba am mais yow euh, léegi nag ku ne képp ku nuy dugal ci justice sañ nga boo njortee ni maanaam diw mi bu ma àttee salfaañe sama ak ak sama yére nga ni dama koy récuser loolu yoon moo ko maye xam nga dans un état de dañoo tout ce qui n'est pas interdit permis maam képp ku dugal ci procès maam mu nekk instruction nga gis ne juge bi xam moo la war a àtte yow wóoluwoo ko yaa xam yan raison tax sañ nga wax maanaam tribunal ni leen man diw mii kat ngeen ma ngeen jox sama dossier ngir mu àtte ma man wóoluwuma ko soit mu rek ñu récuser ko wala moom ci boppam mu jël décision récusée mais maître acteur nga waaye nag justice bi nga ni moom indépendantul maam wóoluwuma ko loolu erreur la ci état de droit léegi yow acteur nga ci justice bi mais am na ay magistrats yoo xam ne ñoom démissionné nañ ba waxoon ne justice bi dafa démissionné euh, am ñoo xam ne dañuy faral di ŋàññi justice bi ba génn ci waaw loolu xam nga lu constat la bu ñu def koo bokkoon ci biir kuréel googu xëy xëy daal démissionné ni moom magistrature dafa démissionné moom moo xam lu tax mu def ko waaye li ma wóor moom ak i ay nawleem ñi ngi ci biir des ci di doxal maanaam li ñuy wax justice. d'accord sañ-sañam la. Mhm. comme ni kenn ko ne ci yow mii bu la neexoon nga jógee fi nga ne daal ni ak ah, man kat démissionné naa ci journalisme parce que journaliste defatul liggéeyam. d'accord léegi eh, appel bi. waaye loolu day firi maanaam journalisme. ma ngi wëy di def liggéeyam wala wëyul def liggéeyam loolu beneen affaire la. d'accord léegi maître Ousmane Sonko bi mu defee conférence de presse. Mhm. ñi dañoo jàpp ne dafa def li nga xam ne mooy appel à l'insurrection. Mhm. ndax yow ci wàllum yoon loolu nga gis. waaw appel à l'instruction boobu euh, loolu lu xaw a jafe la maanaam ci circonstances yi xam ni moom lañ gisee ñu téye ko waaye comme ñun du ñooy àtte maam loolu na ko bàyyi avant ñu koy téye avant ñu mooy jour bu njëkk ba nga xam ne moom la ñu wax ne mhm. euh, dañuy dindi malaanu euh, maanaam policier gendarme yi dañ ko doon jëli mhm. te gendarme yi ñoom nee nañu woon dañu doon def maintien de l'ordre mhm. far ña nekkoon buntu këram am na ñu si jàpp ba léegi ni si kaso bi ndax yow loolu ñooñu noonu dañ leen a toppee appel à l'insurrection waaw xam nga li ma lay wax mooy ci kàlloo nee naa ci état de droit la ne état de droit dañ ko organiser le procureur de la république moom la mooy le maître des poursuites moom sañ na wax ni diw mii kat li mu def ni nuroo nag nangam ok ci la base de ça mu arrêté ko ngir def enquête ngir saytu ndax loolu am na wula amul boo gisee ni loolu amul da lay bàyyi moom lay maanaam mu classé l'affaire bu fekkee njort na liñ lay tuumaal am na tamit mën naa wéyal ab enquête am loolu maanaam ñun amuñu pouvoir souverain pour apprécier ko ndax dañu réew mi nekk dañ ko tëgg ci ay kàgg maam kàggu gune am na loo xam ne da koo tëralal dan ko dañ ko tërale noonu li ñu tërale bokk na ci li ñu tëral mooy le maître des poursuites ki sañ a toppe fii ci Sénégal mooy le procureur de la République bu gisee ni diw comportement am c'est en fait euh, un comportement antisocial mën na topp kooku maam yóbbu ko ci yoon pour yoon atte waaye nag ndax loolu dafay firi nit ki li ñu koy tuumaan moo am déedéet parce que képp ku nu àtte ma xamal la ni képp ku nu ci wàllu réew ci wàllu justice day dafa am lu wax un principe bu wax maanaam lu ñuy wax présomption d'innocence maam day njort ni li ñu koy tuumaal dara amu ci ba lu dul maam justice dafa àtte wax ni li ñu koy tuumaal am na wala amul. d'accord léegi euh, maître. Mhm. manifestation yi fi amoon. Mhm. Euh, bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko ba mhm. am ñu si dee. Euh, lan nga jàpp ne exactement moo waral manifestation yooyu. waa xam nga manifestation yi moom ñu kenn ñu ñun ci Sénégal kenn umpalewul kenn réerewul nii maa facteur déclencheur bi mooy le le le le contentieux. l'arrestation de Ousmane Sonko le le contentieux opposant la dame Adji Sarr ak le l'honorable député Ousmane Sonko loolu mooy facteur en fait déclencheur bi mais ci lu mel noonu saytu nan gis ni tamit am na leneen lu waral li ñuy wax casse yeeg yu ni mel mooy. tey réew mi dafa dugg ci maanaam dañoo situation réew àdduna bi sax mel noonu dañoo ne ci situation bu bu boo xam ni dafa am pandémie di Covid 19. pandémie boobu indi maam restriction des libertés nit ñi ñu tënk leen maam kenn mënatul a dem ci nu la neexee wala dikk ci nu la neexee dafa am ay heures yooyu génn ak yoo sante génn loolu nag bu ci réew mu mel ni Sénégal dem na ba jur frustration bu mag a mag ci maanaam jeunesse bi xam lu ko waral Sénégal facteur maanaam secteur bi ci ëpp doole mooy secteur informel. te secteur informel kenn ku ne xam na ni maam lu ci li muy liggéey li ñuy liggéey ci guddi gi ci su ci ci suba gi noonu lay liggéey ci guddi gi léegi bu fekkee tey dañu indi couvre fa maam commencé ko ci vingt heures ñi waroon a liggéey diggante vingt ba jëm fajar ñooñu dootuñu ko man alal ji xam ne moo leen doon dundal di dundal seen njaboot mais dootuñu ko gis parce que ret non seulement euh, maanaam tënk nañ leen ba pare amul des mesures d'accompagnement loolu dem na ba lu nu wóor ni maanaam jur na ay frustration nit ñi nag daal di profité ci situation bi mm-hmm. daal di wane seen nakar ak seen ak seen ak seen métit ci wàllu wu ne mel te loolu yemul ci loolu tey jii kenn ku ne xam ne fii ci Sénégal lu chômage bi nekk chômage bu endémique la dangay gis ndaw ñoo xam ne nii man am naa ñoo xam ne maa ñoom ñoo génnoon université ba léegi ñu jàng yor seen i lijaasa ndax dama leen a gën déedéet te ba fii ma wax yow ni amul liggéey bu ñu jàpp. te dañ leen da nga jàpp ne daal euh, tolluwaayu réew mi moo tolluwaayu réew mi nit ñi dañu sonn nit ñi dañu sonn ku ko wax maanaam ak ku ko waxul ñoo ci bokk. léegi ministre l'intérieur nee na ay terroriste la. loolu loolu ay caaxaan la. seen dama lay wax ne la terrorisme ci Sénégal lu jafe wane la lu jafe wax la xamul tax maam nit ñu tëggee ñun ci Sénégal nit ñu mooñee maam terrorisme fii milieu bi nekk fii Sénégal du un terrain propice au terrorisme. man li ministre wax daal ay caaxaan la. loolu ay caaxaan la léegi keneen mbër yi la nag. ministre de la justice également des accusations infonde la parce que amul firnde bu wóor bu ko wanee dama lay wax ne la réew mi ñu nekk nii ci terrorisme terrorisme maanaam bi tax ñuy wax terrorisme maam terre bi maanaam Sénégal du terrain bu propice kon loolu wax ko erreur la bu mag a mag a mag ma xamal la aussi ni la maanaam li waral maanaam lépp bokk na ci ginnaaw bi ma la waxee maanaam restriction yi xam ne moom lañ def ci liberté nit ñi te amul benn mesure d'accompagnement bokk na ci li waral maanaam cause maanaam manifestation yi mooy somage chômage endémique bi xam ni dafa dal askan yu baree bari ñu jàng ñuy jàng ba ba ba àggal yor ay maanaam li jaar sa fees dell xam-xam mënunoo jariñ kenn loolu dafa netti bala nga koo xam da nga caa toll man mii ba mu génne université yàggul ban ma jàngale tàggat ma ba jox ma samay lijaasa yàlla dafa def ma dugg ma ma admis concours am na koo xam xëy na mëntu jaar ci concours mais yow yaa ngi wax euh, mesure d'accompagnement yi mais mille milliards yi nag mille milliards yoo xam ne nii dañ koy dégg rek gestion ba kenn xamul nañ koo defaree loolu laa ni Sénégal dana war a mais est-ce ngeen yéen gestion bi ah oui bu baax a baax a baax xoolal communiqué bi ma la wax d'accord léegi nag euh, maître ñi ci faatu moom ci mbir mi mhm. léegi yow lan nga si xalaat waaw loolu nag euh, lu lu lu tiis la wax naa ci émission bu yàggul rek wax ni benn bakkan rek bu ci am réew war na maam tey na bépp sénégalais rawatina ñu ci lim benn bu fukk ak ak ak ñaar loolu nag jàpp naa ni état bi war na xoolaat bu baax sécurité doomu aadama yi parce que moom moom rek la yoon may maam mu saytu kaaraange ak doomu aadama yi. mais ñi wax ne mbir mi dañ ko yóbbu CPI. waaw loolu sañ-sañ la képp koo xam njort nga di maam lii nii maanaam danoo salfaañe yoon. tey maanaam nga mën a saisir telle juridiction bu la neexee nga def ko. léegi nan la ñuy def ba li xewoon dootu nan la ñuy def ba li xewoon dootu xewati. mooy fexe ba réew mi ñu teg ko fan ko war a teg mooy ñu jublu ci yittey Sénégal yi fexe ba nit ñi ku bëgg a jàng jàng boo jàngee ba pare am ab liggéey boo boo boo jàpp parce que ku ne ci liggéey yow mii fi nga ne nii taloo taloo gën ci biti di xeex ak ko xuloo tal nga leneen. dañu wax ni gumba tal na beneen liggéey bu di nas yi puso tey jii nit ñi ndaw ñi bu leen canaliser woon jàngal leen dugal leen ci ay liggéey yoo xam man noo jariñ askan wi loolee dina la doon sëkk ab liggéey di nekk ci biti di sànneeka saagaaka yàq mais est-ce que mënuñoo response euh, ñan ñoo ci am part de responsabilité ci yàq geeg ñi ñu rey waaw li ñi usmaan su ñi fareeg Ousmane Sonko la war a ñi fareeg nguur gi maanaam ñaari parti yëpp man jàpp naa ni kenn ku ne am na ci responsabilité euh, en premier lieu l'état du Sénégal bi xam ni moom moo war a sàmm kaaraange doomu aadama yi ak seen alal moo war a ñoŋal doomu aadama yi ci seenub der seen alal ak seen deret li mu ko waree noonu noonu la waree bépp citoyen sénégalais ba ci Ousmane Sonko mi xam ne sax moom moo nekkoon au cœur en fait donc de la de, de donc de la cause moom ci boppam waroon naa jël kàddu àddu wax ni képp koo xam ne nii ànd na ak moom maanaam buñ ko gis ci lu jëm ci luy nërmer réew mi ci yàq ak lu ma parce que yàq gi ñun suñu alal dong lan yàq. kon na nga yaakaar ne Ousmane Sonko déclaration. waaye déclaration ba mu def dafa encouragé loolu. waaw dëkk non jàpp ma lu waaye dëkk mënoon na également ci déclaration yi mu def maam woo nit ñi tamit ci jàmm maanaam bàyyi maa fexe ñi xam ni dañ koo sopp wala ñu bëgg ko maanaam ñu moytu luy nërmeel am réew mais wax na loolu wax na ànd ci yàq gi waaw mu ngoog loolu da lu ko waxee war na ko wax bu ko waxul war na ko wax léegi euh, gis nañ ne dossier bu Ousmane sonk bi daal ak mhm. Adji Sarr li ci xew lépp bari na mhm. euh, dafa am benn euh, avocat bu ñuy wax maître Sow ak metre joor Diagne mhm. ñoom ñaar kenn ku nekk porte na sa moroom plainte maître Dior Diagne porté na plainte maître Sow ak maître Bamba Cissé avocat usmaan Sonko maître Sow. Mhm. Euh, porte plante Dior Diagne mhm. maître Dior Diagne mhm. pëcc xoo googu noonu am ci ci ci baro bi lan moo ci sa xalaat. en tant que avocat à la cour. waaw man daal li may wax ci wàll wu mel mooy maanaam barreau du Sénégal institution la boo xam bu organisé la bu normé la néew la sang di ko dégg li ko waral mooy dañ koo teg ci ay ay ay bànqaas yu wóor maam ay nit ñu xarañ. ànd ak maanaam jikko yi gën a rafet ngànk ko ba tax na mboolem lu xew ci biir manees nañ ko réglé te kenn du ko yëg ma njortu ni mhm. képp ku am kilifa doo gàggee doo gàggeen doo gàggantikoo ci biti kon avocat yooyu dañoo juum dama njortu ni daal képp ku am kilifa doo gàggantikoo ci biti mais avocat yooyu dañoo juum wala juum li ma mën a wax ci cas wax naa la ko da nga koy dama koy répété bu baax dama ne ku am kilifa doo gàggantikoo ci biti kon liñ def rafetlu woo ko foofu laa mën a. ah non non maître non maître li ma mën wax daal euh, sëñ mooy dama ni kilifa lu am solo la. waaw te ku am kilifa doo gàggantikoo. mais rarement la ñuy gis ay avocat di portante plainte. waaw looloo tax ma wax la ni la ku am kilifa doo gàggantikoo ci biti. d'accord léegi. Euh, man maanaam li ma xam mooy kilif te kilifa yi xam ne ñoo ŋànk maam baru di Sénégal maam yàlla def na ci ñoom maam xam-xam ak xarañte goo xam ni amul dara loo xam mën na xew ci biir maanaam sunu baro boobu. Mhm. te mën na koo lijjanti seen. waaw mais yéen euh, seen baro boobu nag euh, dafa mel ni ma ngi waaja a ndax yéen. bu njëkk bu bu benn dossier nekkee euh, instruction gis nañ ne avocat yi daawuñ ci faral di wax ak yooyu mais bii ak euh, yeneen dañuy gis ne euh, batuñe bi day wax di jubbanti di génn ay communiqué di dànkaafu teewul yenn avocat yi di xaabaabal lan ma waral loolu. waaw li ma la man li ma la li ma wax rek ci boo ci lay dellu si dama ni ku maanaam boo nekkee ci ab gox. waaw mais di nga ma wax nag lan moo ko waral nag. waaw boo amee ci kuréel goo doo nekkee ci kuréel goo xam ne nii maam kuréel googa mate na ko sëkk. nga am kilifa doo gàggandikoo ci biti. d'accord te it ma moo xam ne la maanaam ba baro bi ñàkkunu fayda te it maanaam ñàkkunu nun mën a maanaam jubbantee mboolem ko am njort na ni da ngaa wàcc yoon d'accord léegi dañoo gis ne Ousmane Sonko bi ko doyen des juges Samba Sall dégloo mhm. daf ko def contrôle judiciaire tere ko mu wax ci dossier bi mhm. tere tamit euh, Ndeye Khady Ndiaye mu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy dossier bi mhm. euh, leeruma timit ne Adji Sarr tere nañ ko ko wala déet mais ñaar ñee leer na ma mais Adji Sarr ginnaaw euh, juge bi déglu na ko ba pare rek Euh, est-ce que amati woon na sañ-sañ di wax ci dossier bi. waa xam nga li ma la wax sànq nee naa la secret d'instruction dafa am le secret d'instruction xamul lu ko tax a jógam mooy mooy mooy protéger l'enquête ak pré ak protéger li ñuy wax présomption d'innocence maanaam article bi ma wax ni mooy article onze bu code de procédure mhm. pénale daf ni l'instruction est secrète. Mhm. mu ni l'instruction est et toute personne seules les personnes qui en fait concourent à la procédure son effectivement tenus du secret professionnel ñooñ mooy lan mooy les magistrats les avocats les, les huissiers la police la gendarmerie les effectivement euh, comment dirais les experts en fait donc euh, les experts euh, waaw ñooñu dañ leen a dañ leen a astreindre à que ñu bañ communiquer ci dossier bi kon képp koo xam ne nii maanaam juge bi diglu na la jël mesure nga wàcc yoon woowu moom moo am sañ-sañ maanaam def la ko yoon sant léegi Adji Sarr lu tax mu wax ci kon jalgati na yoon. waaw loolu juge bi moo koy apprécier xam moom. moo non non non waxuma juge bi. mais yow lii c'est c'est mathématique. li ma mën a xam daal mooy. Hmm. maam képp koo xam da ngaa ne ci procédure d'instruction yoon da laa tere nga àddu ci. kon yoon tere na ko Adji Sarr. yoon daa tere mboolem ku bokk ci instruction di concourir à la à manifestation de la vérité. Hmm. nga génn ci biti di coow. boo ko defee article 363 war naa mën a dal sa kaw ak koo mën a doon. ak koo mën a doon kon article war naa dal ci kaw Adji man daal noonu laa ko mën a waxee. <laughs> non maître. Euh, li ma wax ju wóor la ju leer la. dama d'accord d'accord maanaam képp koo xam ni yaa ngi ci instruction. Mhm. maanaam yoon da laa tere nga wax ci. d'accord léegi euh, ñoo ngi wax ni ñu bari euh, lu jëm ci amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall ndax gis nañ ne Ousmane Sonko nekk na ci di lëmbee politique bi ñenn ñi jàpp ne daal ñële waroon nañ leen a mën a indi yow lan moo ci sa xalaat. waa xam nga amnistie moom. Mhm. dama bëgg yi xam leen mooy. Mhm. amnistie nekk jekk dafa ànd ak état de droit. amnistie maanaam maanaam euh, prérogative la bun jox maanaam. njiitu réew mi njiitu réew mi pour mu mën a effacer par la loi. en fait mmh. donc des actes. Mmh. Mmh. sañ na ko. maanaam bun ñu ni maanaam pour l'unité nationale. pour la paix. et pour l'intégrité territoriale mën nañoo jël une loi d'amnistie c'est une loi d'ailleurs spéciale pour maanaam faxas. Mm-hmm. maanaam ay ay ay am-am yu amoon ci ab diir. Mm-hmm. boo xam ni dañ koy quantifier dañ koy délimiter maam yoon may na président de la république mu mu mu jël loi boobu pour amnistier tous les faits dama xamal ne la dun amnistier une personne on amnistie des faits maanaam des faits amnistie ay faits la. on gracie une personne mais amnistie maam ay faits lay couvrir dañ naan par exemple en 2005 amoon na fi. ñu ni ci ba maanaam at sàngam ba at sàngam mboolem lu ci waay mosoon a def ci loo xam matière délictuelle la wala criminel yoon toppatu la ca dara mm-hmm. maam moo xam ñu jugé woon la euh, ba pare wala ñàkkoon laa jugé yoon day daal di tegloo day mel ni yéen euh, ngir démocratie Sénégal mm-hmm. euh, est-ce que yéen d'accord ngeen Karim Wade Khalifa Sall ñu am amnistie leen waa dama wax ni man ay fee ay fee laay wax maam des fee maanaam ci bu fekkee maam réew mi intégrité réew mi unité ak jàmmam maanaam loi bi bokk na ci li ko mën a indi njort naa ni jënd def ko jël ko wàññiwul dara. d' accord léegi maître ñu jeexal ak euh, coronavirus bi état de catastrophe bi dindi nañ ko fi. Hmm. teewul coronavirus bi ma ngi gën di law euh, ñiy décédé tamit ñoo ngi gën di bëri lan moo ci sa xalaat. waaw coronavirus bi moom maam dégg na borom xam-xam yi xam ni ñoom la seen xel gën a màcc ci wàllu wu ni mel àddu nañ ci wax nan lañ ciy fegoo. maanaam tey jii ñu décréter maanaam li ñuy wax état. Euh, euh, de catastrophe sanitaire ak ñàkk koo def ñooyam gis nga feebar bi ku dul yàlla suñu borom ak doomu aadama yi kenn ku ne ci sa bopp mënoo cee fekk sa mënu kenn mënu cee fekk sa bopp mooy li ma xam mooy ñi xam ni maam bépp citoyen sénégalais war naa sàmmoonte ak boroom xam-xam yi lu ñu wax mooy di raxas say loxo di laal euh, gel gel gel antiseptique yi aussi di dànnante maanaam lu tolloog mètre ci maanaam ci ci ci ci ci suñ diggante te di ko di di ko sàmm sàmmle ko également ñeneen ñi loolu daal yaakaar naa bu ñu ko defee yàlla mën na nañu muccal ci feebar bi xam ne moo fi jërëjëf ñoo lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant di la gërëm euh, Kuba di dellu di sant euh, docteur Aliou bi xam ne moom ma yabal fii. Mhm. Euh, di ñaan Sénégalais yi topp ko ci xam ne programme bi xam ne moom la tëral ngir génne Sénégal ci ci jafe-jafe yi nu mel parce que boo xoolee am na nañu soppi. li soppeeku bëriwul eh, maanaam yaakaar ñëw na fi dafa tas tey jii nag ñun liggéey lañu proposé d'accord waaw ma bëggoon nag ñu jàppale ñu ci liggéey boobu ngir jox ko li sokk li réew jërëjëf maître Abdy Nar mbokk yi moom la ñu invité woon mu nekk avocat à la cour nekk porte parole euh, parti bi nga xamante ni mooy MPD liggéey te docteur Alioune Sow jiite ko moom la ñu invité woon tey ci seen émission euh, réew mi muy am samedi bu jot 15 heures jàpp 16 heures ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Adama Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jër ngeen jëf jàmm ak jàmm